asalaamaaleykum mbokki internet yi di len nuyu bu baax di len ziar di len bëggee yi ñuy suivre ah ne ñu ngi fi ci école de lutte Balla Gaye Thiatou Daouda Fall woote fi di def point de presse mu wara a le 21 janvier ci digënté ki nga xamanteni ne moy mooy Guine Mbiof ñu toog ak ki nga xamanteni ne moy mooy coach am muy Lamine Faye ñepp xamé nañ ko dañ koy bayyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi Lamine maa ngi lay nuyu. sant ñëpp gërëm ñepp di nuyu monde entier di nuyu monde de la lutte yépp di len sant di len gërëm di nuyu mbër yi di nuyu. bépp kuy yëngu si làmb rek di nuyu waa Géejawaay di nuyu école de lutte Balla Gaye kulli mbër mag ba ndaw du jël nuyoo bi di ko tox ci loxo Balla Gaye 2 rek nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñëpp mbëri waaw. Euh, dañuy ñëw ci li nga xamante ne mooy combat Thiatou Daouda Fall ak euh, Tine euh, bi muy premier ko rek. waaj ko rek waaj nañ ko ni ko war a waajee lépp teg nañ ko ay coono wax dëgg yàlla liñ si namm daal mooy incha allah rabi samedi ak jàmm yàggatul si simmeekoo di ngeen xam ne tegoon ay coono. ñu nekkagul meilleur gars yi ñoo gis meilleur rek ndax déggagul daal di tollagul fenn fii. man bala ma koy concéder comme maire damay bay bu mu tollu fenn fi mais fi mu ne nii ndaw la rek xalé bu nek ci parcours di def yu xalé pour yegg ci kaw. Mhm. waaw tey nga xëy nga combat so xolé par ben combat ñaar yoy dafa metti pour préparer ko mais comme ñom ñi ñëpp ni ñu amé combat presque plus de 6 combats nek fi ñoom ñëpp ñooy bokk même préparation day gën yomb ci man. ndax liggéey bi day nekk benn mais su fekkee kii day bëre tey toogaat un mois nga préparé ko loolu day met mais su baree rek day met si man mais yàlla suturaal na ma ba ñoom ñëpp ñu ngi ci liggéey bi daal. Mhm. bu ñëwee ci li nga xamante ne moom mooy actualité bi ba tey coow nan nga gisee combat non c'est que ñaari mbëri ñoo laaj lool rek xëy na seen coow moom. làmb ji moo ko laaj rek ndax ñoom ñaar wax dëgg yàlla jaay nañ mbaa bi neexal nañ ko def nañ ko lépp moo tax après combat sax faaw mu am tuuti bruit quoi. Mhm. gis ne Ada Fass a ragalaale su ñëwee lu nekk ngay dégg façon critique bu nekk ngay dégg Ada Fass daa war daanu rek daanu te ki ko daanu war na koo mën a daan mais du question de xëy na kët si nag yooyu yëpp. dëgg la di gis ay failles mais da ngay mal positionné wu pour dugg si quoi mais na xam ne sport la rek Ada daa ñëwoon pour wut si te yaakaar naa ne ay millions la def si combat bi préparé ko gis nga li ko topp yëpp su sañoon ndam lay génne si stade bi zar ko tamit noonu mais na nga xam ne Zarko daa war a daan Ada te war na koo daan. du làmb joo xam ne tey jii Zarko day daan Ada Fass noo fooguma ko woon noonu non Zarko su daanee Ada da ko war a daan aada xale la amagul dara lu muy perte si làmb nekkoon ne war liggéeyam rek nekkaat ci li mu war a nekk gën a fonkaat boppam rek. Mhm. retour Zarko nan nga ko gisee ñu daan ko. baax la làmb moo mel noonu rek xëy na dafa def li tubaab naan pour mieux sauter reculer na te bi mu ñëwee mu ngi sauter sauter bu baax waaw. Euh, mais balaa combat Sa ak ki nga xamante ne mooy Reug Reug Balla Gaye 2 gannaaw ba mu jógee ci combat mu war a bëri ki nga xamante ne moom war a bëri ak Eumeu Sène ñii ne dafa a dem fi mu ne nii man maa ngi concentré si combat ñii fi nekk comme Thiatou Daouda Fall Gacko 2 ak ñii ndax xam nga combat boo xam ne ñëwagul xamoo ba xam ren la wala déwén la doo si mën a prononcé wu di dem ñun ñu ngi préparé komba boobu ak di waajal Sa Thiès combat bii nga xam ne moo Reug Reug buy première sorteem ci école bi yooyu daal si lañ gën a dënmal ka Balla Gaye ndax combat am ñëwagul quoi ndax mënu ma laa wax ren la mënu ma laa wax déwén la mhm. ah, mais Sa ak Reug lu bari ne Sa daan rek moom moo ko war ndax euh, puisque Balla Gaye daan na te ñoom ñaar du si am Sa mbër la athlète la boo xam ne ni muy combat ak ñàkk komba day entraîné moom moom côté boobu tiituma ko si mais nañ xam ni Sénégal làmb la rek te gis nga ki yor dernière décision bi pare na bu yàgg muy yàlla yàlla pare na bu yàgg xam na kii daan ñun dañuy am yéene ak mottali rek ak waqiirlu pour nekk si loo xam ne ni moo ñu war a may ndam mais yàlla pare na démb tey doog ñëw di ñaanal Sa rek ñu yegg seeg jàmm sunu borom defal ko ndam bu sedd guy. Sa Thiès Sa Thiès que moom laa xam mooy sama athlète te bëre bi mu yor wóolu naa ko te mën na see daan ku nekk Sa mën na daan ku nekk c'est que làmb ji dañ koo umpale rek ndax ko ñoo Sa Thiès teeyul wala nangam ak sànq patati patata gis nga soo mënee bëre wóolu sa bopp waroo xaar te xëy na moom loolu rek lay demee loolu la rek mais Reug Reug tamit mbër la champion la ñëpp xam nañ ni mën naa bëre ndax def na fi ay jalooreem mais man su ma doon teg man am naa droit ne Sa moo dàq bëre. mais kan pression comme. waaw luy loolu Reug Reug gañ a waru ko moom wala Reug Reug kon amul pression moom est-ce que Reug Reug ëpp leen pression. que Sadio Sadio man pour man nii Sadio du ma gis sax si kanamam di liir ni am na pression wax dëgg su yàlla rek taxee ma ak bëgg wax dëgg rek gisuma pression si kanamam xam naan daal mu ngi waaj lépp lu mu waaj xalaat pour yàlla sunu borom defal ko ndam mu ngi ci mais gisuma ci moom pression wax dëgg yàlla ndax nit moom suy liggéey xëy di liggéey di entraîné ji di tëdd di noppal di lekk ba suur di bàyyi li mu war a dox mu koy dox kooku jàpp ma ne am na pression

xam nga wax nga wax ji yëpp te tënk nga wax ji yëpp ba wax nga ba tënk sa bopp mooy nee nga ma nekkoo foofu. mais comme actualité bi nag. non lépp lu ma ci wax rek damay juum. lépp lu ma ci wax rek xam nga lan laay bañ juum. xam nga nit tamit sooy wax da ngay wax loo maîtriser wala ñoo nekkal mais muy kaawu Ama balde kaawu modlo Lo kaawu Boy xaw ma sax lamb ji ni ni ngeen si am nii rek laa ci am. mais combat royal la ko ko non combat royal. luy combat royal. ma mhm. mhm. ah, di ko ñaanal daal su fekkee Ama Baldé la am yàlla na Ama am ndam. waaw man moom Ama dama ko faral quoi te dawuma si dara nëbbuma ko keneen ku mu amal nag ñoo xam que le meilleur mais su dee su dee Ama la am. Mhm. yàlla na ko Ama daan. te gëm nga ni Ama li mu ba tey mën naa nekk. xaw ma ama li mu wax ak li waxul de man damaa wax sama yéene ak sama xol ak sama ñaan. dama ne su dee ama la am yàlla na ama am ndam. bu dee boo ñaanal. déggoo li ma que le meilleur gagne. ñoo fa am sorry.